الحمد لله مول العيس وسفري من كان في غدري لو كان في سفري الحمد لله مول الحبس وسفري من كان في غدر أو كان في سفري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalallahu ala man ursila rahmatan lilalamina sayidina mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa radiallahu an xadimihi l akbar xadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xamili liwaa ilhamdi wa sukri si ahmadu bamba groupe M-Media Nour Daarayni maa ngi fas yéene ñëw ak yéen ci liggéey bu rëy bi nga xam ne moom lañ méngoo te di ci liggéey ci fan yi muy gëstu ci mbindam sëriñ bi ak leeral ci suñu kem kàttan suñu kem ak xam suñu kem ak ràññee suñu kem bëgg-bëgg euh, muy loo xam ne nag la ma rek ci bu njaal benn ga yi géej la goo xam ne amul tefes euh, moo ne yemul fenn nit dugg na ci euh, mucc waaye nit dugg na ci itam lab melaw géej la amee ngir ne moom ne amut ay bànqaas euh, loolu nag am solo gu mu am solo njariñ la num rëy leen jiitaloon nag mooy ne dañoo waxoon xasida yi lan mooy xasida lan mooy xasida daal di koy eh, xam ne bu baax wax ci buxóor yi nga xam ne bii moom lay tëggoo wax ñi jiitu woon nañ defare woon nañ woyee woon wax sëriñ bi bi mu ñëwee ni mu woyee ba ñu fa jógee ñu wax indi mbindam sëriñ bi wax ci njariñal xasida ak ay mayam ak ak defaram ak ak nungoom ku ko borom bi tabaaraka wa taala nungu te ko ak njariñam lu bari ba fa jógee ñu ñëwaat ci mbiru teggin mbiru teggin teggin mooy lépp lu amul ay teggin rek amul solo moom rek euh, mooy li nga xam ne moom la ñu mën a jariñoo mbir mu ne rawatina mbir mu jëm ci borom bi tabaaraka wa taala moo tax sëriñ bi man xaj bi mu jël jiital ci teggin ndax jàngale amoon na fi ak yare waaye bi mu dikkee te mu bëgg a defar dafa waxoon ne ko ànd ak man ngir jàng doomu daal na nga xam ne am nga ndigal yiwi waaye ko ànd ak man ngir itte itte rëy na soo ànd ak jëmm ngir itte da fekk xam-xam da fekk yar danga fekk teggin danga fekk ak defaru danga fa fekk ak yéwén sëriñ bi nag noonu la def mbokk yi nag ñu bëgg a tàmbalee yéen ci xasida gu am solo goo xam ne mënuñu sax ndar li ci nekk lépp ci ay jariñ xamuñu ko xamuñu kaar bi sax xamuñu ko buñ ko xaajoon ñetti xaaj suñu xaajoon ñeenti xaaj benn ba xamuñu ko waaye dañuy nam na bi rek waaye ku jéem sëriñ bi dimbali la ndax dañoo fas yéene liggéeyal ko rek xam gi sax lan di wut waaye bëgg-bëgg ba moo ñu ci gën a jiñ mooy xasida ak wakaana ak xanaa lay naa nasul moom yi nii coocu lañu fas yéene tàmbali suñu ab liggéey suñu liggéey foofu lañ ko fas yéene tàmbali Eh, nag muy xasida gu am solo goo xam ne li mu làmboo ci ay njariñ bari na li mu làmboo ci ay xéewal ak tawféex ak ak defar ak ak jàppandal ak ak may buñ ci duggee rek dinañ ko xam ndax suñu xoolee rek ñetti aay yi nga xam ne bii moom la xasida gi làmboo lépp rek aaye bu ne rek aaye yéwénal la aaye jàppandal la aaye defar la aaye sedd xol la eh, kon am na solo lool su demee ba ci biir itam lu mel noonu rek lan ci fekk sëriñ bi waxal ko boppam waxal ko boppam dañuy wax ne kon xaside gi xaside gu am solo la yépp am solo waaye itam sëriñ bi da koo tënk ci aayaay alxuraan ci ñetti aaya la ko tënk dinañ ci dikk waaye dañuy wax ne xaside itam sëriñ bi mi ngi ko defar ci baxru rajas ci la ko tënk ci weeru koor ci xomaak ci ginnaaw bu mu ndax gànnaar dafa dem ñaari yoon ginnaaw bu jógee ci géej ga demam ñaareel ga ci Mauritanie te mi ko def itam ci ama jaksasin 1323 euh, ca gàddaay ga euh, xaside gu yéeme la ndax li sabab mu woy ko benn naar bu tudd Abdullahi euh, moo ñëwoon ci moom benn suba wala eh, yoor yoor wala daal waxtu wam fa ñëw léegi fekk nag ñoom gàdd googu ak naar yooyu dañoo nekkan ci ay xat-xat ak i jafe-jafe naar ba tudd gént Serigne Touba jox ko xaside gu ñuy wax wakkaana ak xan mu ne kon moom dana ca dem bi mu demee rek ne tuuti rek mu nuyoo sëriñ bi sëriñ bi génn xaside wakkaana ak xan jox ko xaside ga tooy xëpp ak mbind nga xam ne dafa tontu ab laajam ñu naan ndax xasida gi tey la ko woy wala woyu ko tey wala lu man ci doon daal moom ajum faju na bañ demee ñoom naar ya di ko jàng di ko dappetoo masha allahu seen biir ak seeni soxla ak seeni aajo ak seeni jafe-jafe seeni yooyu yëpp mujj na gën a jàppande bu baax a baax a baax a baax kon masha allahu kon loolu am na solo suñu dikkee nag ci xasida gi wakaana aqan alay na nasrul muminin nga xam ne bii boo demee ci suuratu ruum da fay fekk danga koy fekk sax moom mu nekk ci biir ab aaya moom du aaya bopp waaye da koy fekk mu nekk ci biir ab aaya muy wax ne yàlla yàlla ci jëmmi boppam xam nga yàlla dara waru ko ci bind gum ni bind li ci aju waaye moom ne maa war lool ndimmal maa war lool ndimmal ñeel jullit yi maa war lool ndimmal ñeel jullit yi suñ ko xoolee mu nekk ñaar fukki araf ak ñeent ñaar fukki araf ak ñeent eh, ñaar fukki araf ak ñeent sëriñ bi indi na ko ci ñetti yoon kon 24 eh, moom ngay dar bu ci 3 eh, mu jox la 72 mu jox la 72 kon 72 mooy wa kaana aqan na nasru mu'min sëriñ bi indi na ko muy te bu ne ci arab bu nekk da koo def aw bind muy mbóot yu am solo mbóoti jàppandal yu am solo solo solo ñaareel ba mu indi ci fastajaaba lahum rabbuhum te moom muy aaye bu am solo boo xam ne sëriñ bi sax andi woon na ko feneen ci ay mbindam ci lu bari sax waaye fii ni ko fi indee mooy ne lu ñu defar ba mu rek maanaam daal bu doon aw ñam dañ koy misaal dañ ne ñam woo xam ne jële nañ ko foo foo ko war a muy ñëw di ñëw ba fañ koy toggee ñu togg ko ba mu ñor ba ñu defar ci lépp rek nga xam ne nit ki day ñëw rek daal di jëfandikoo fas jaabalawum rol la indi ndax boo xoolee aaya ba na nga xamee ne bii maanaam noonu noonu la ñëwee ci suurtu Ali Imran soo xoolee aaya ba daanaka du sore 194 aaya duñ sore boo ñëwee mi ngi wax ne audu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inna fi xalqi samawati wal ardi waxtilaafi layli wa nahaar لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ما لسالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وتوفنا مع الأبرار rabbana wa atina ma waxatana ala rusulika wala tuxsina yawmal xiyaamati innaka la tuxliful mi'aad mbokk yi xool rabbana yi yëpp di ñeent rabbana bu nekk borom bi tabaraka wa taala di ci di ci wax ay ñaan yoo xamee ne bii ay ay yonant ak i nit ñu baax ñoo ko ñaanal borom bi tabaraka wa taala ba nungu moo tax mu ne fastajaaba lahum rabbuhum ñoom de loolu lépp nu ñaan yàlla da nungu ba pare lam ca mooy li ngeen di jëf moo xam góor la moo xam jigéen moom duma sànq jëf ja kon nga xam ne góor wala jigéen kenn ku ne su jàngee xasida gi njariñ la dafay daal di tàbb ci yow dafay daal di ñëw ci yow kon loolu lu am solo la lu am solo mu indi ko ñaari yoon te bu ci ne euh, fukki araf la ak juróom quinze multiplié par deux day indi trent noonu la ñëwee kon lu am lu yéeme la loo xam ne ay njëriñam mu ñu ko takk lu jàpp jàppandal la bu ñëwee nag euh, xasida gi li nga xam ne bii moo ko tëj nag moo tëj aayaat yi mooy falaa taalamu nafsun ma uxfiya lahum min qurrati aynin jasaan bima kaanu yaamaloon soo ñëwee ci saaru sajida mooy saar yi nga xam dañoo eh, digle ku ci sujjóot di torox loolu borom bi tabaaraka wa taala ginnaaw aaya boo xam ne tatajaafaa junubuhum anil madaaji'i yad'uuna rabbahum xawfan wa tamaan wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun daal ne falaa taalamu nafsun mi nga xam ne ki nga xam ne bii dafay julli guddi ki nga xam ne day jaam yàlla ki nga xam ne day wéetal yàlla ki nga xam ne bii daf koy kennal ne ne kooku de yàlla sama borom ci boppam nangu na mbiram te lam ko dencal ëllëg ci ceddu xol xamuñu kon dafa mel ni rek lépp aay yooyu yëpp dañ koo defar ba mu jekk rek nga xam ne da ngay ñëw rek jëfandikoo mu dem moo tax falaa ta'lamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bimaa kaanu ya'maluun moom itam mu nekk 48 xarf sëriñ bi benn yoon da ko indi fii suñu boolee yooyu yëpp nag 42 yi ak yi ak 30 yi am na ñaari bayit yoo xam ne bii sëriñ bi da koo baamu ci biir xasida gi buñ ci diggee rek allah dinañ ko leeral dañoo fas yéene jàngat xasida xasida gi rek buñ ci noppee benn benn lii lañ dañ doon indi li nga xam ne bii rek moo jëkk ci xasida gi waaw xasida gi euh, xasida gu làmboo lu bare bare xasida sukkuriya la xasida tawxiid la xasida munaajaat la xasida euh, dellu ci borom bi tabaaraka taala ñaan la xasida lépp la xam na incha allahu bu ñu ñëwaatee rek la ca topp nga xam ne bii maanaam day day day aju ci xasida gi dañ koy topp ndànk-ndànk rek dañuy dañuy kii ndànk rek waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërë ngeen الذي